dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy ci Ibrahima Samb taximan bi nga xam ne rayoon nañ ko ci Yoff ci ñaar fukki fan juróom ñaar ci weeru octobre atum 2016 te ñu joxar bi woon ci baaraamu tuuma benn waay bu tudd Ousseynou Diop ne moo ko rey Ousseynou Diop moomee ñu tegoon ko loxo jël ko yóbbu ko ca kas bu Rebeuss niki démb la ñu ko doon àttee ci tribunalum Ndakaaru waaye nag yaram dawoon na loola moom Ousseynou Diop la mu xam le nee na moo ko rey waaye jublu si woon rey ko journal bi di réew mi quotidien dikk na ci giita ngaas gi nga xam ne moo doxoon diggante taximaan boobee di Ibrahima Samb ak Ousseynou Diop xuloo ak xeexoo gi nga xam ne moo doxoon seen diggante bala cay am am ca loole lépp yéen gi daan na ci xëy dëkk waaye nag parquet bi niki démb moom la muy sàkku mooy ñu tëj ko lu si ñaar fukki ati kaso yaayu Ibrahima Samb niki démb yëkkati na ay kàddu yoo xamante ni kaddu yu doy waar la ci tribunalum Ndakaaru daan nay wax ne Ibrahima Samb moomu nga xam ne moo nekkoon sama doom te ñu rey ko moomu doon dimbale jamono ji maanaam mën naa jàppe sama bopp néew buy dox ndax amul kenn koo xam ne maanaam moo may jàppale Eh, bi mu daanelee ci tribunal bi ci la Ousseynou Diop jël kàddu gi daan na ko yaay buy même soo ma rejeté même soo ma bëggul dinaa def sama kem kàttan ngir nga baal ma ci lii nga xamante ni maanaam teg naa ko sa doom te bu dee ak jàppale lépp loo xam ne mën naa ko dinaa ko ci def maanaam boole leen ma ci njaboot gi Birahim Seck ci yéen kaay gi di li quotidien xëy na yëkkati ay kaddu joxar bi baaraamu tuuma inspection générale d'État ndax xam ngeen fan yi ñu génn inspection générale d'État dañoo génn ay rapport waaye nag Birahim Seck nee na yeexaange gi nga xam ne am na ci rapport yooyu loolee rek religieux dafa li nga xam ne maanaam mooy loi bi beneen bi nag am na ay luqu njuur yoo xamante ne am na ci rapport IGE yi maanaam ay manquement yu doy waar a waar yoo xam ne am na ci moo tax waa Forum Civil ñoom Birahim Seck di sant ak saako ci Cour de comptes ak OFNAC maanaam ñu càmbar rapport yi nga xamante ne inspection générale d'État maanaam daan na koy génnee maanaam ci gàttal Forum Civil ñoom wóoluwuñu rapport yi nga xam ne inspection générale d'État génn na ka di lay quotidien xëy ci appartement yi nga xam ne état bu Sénégal nee na daf koy jaay journal bi xëy na def ci ay révélation yu tey war a doy war nee na état bu Sénégal jamono ji dafay njaay cekkee bëgg a tuur lëndëma maanaam Père Ndiaye askanu Sénégal bëgg leen a gëmloo ne leen appartement Eden Rock jamono ji ñoo ngi koy jaay waaye journal bi nee na état bu Sénégal joxe na ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg bëri na ay ministre ak i homme d'affaires ak i xaritu nguur gi ñoo xamante ni jamono ji jox nañu leen appartement Eden Rock en tout cas ñi nga xam na ñooy avocat yi bii ñoom ñoo ngi dànkaafu képp koo xam ne maanaam bëgg nga kaa jënd yéen a kaay gii di réew xëy fekk fa Mamadou Lamine Diallo la mu xamle nee na njiitu réew mi di président Macky Sall ci lu jëm ci rapport inspection générale d'État gis na ne dafa joxar bi baaraamu tuuma ay jege ñaaleem jàpp leen loxo ci poos loolee moo tax Macky Sall bëgg soppi débat bi maanaam di fi wax mbiri déclaration patrimoine waaye nag musu ko la ndax moom Macky Sall ci boppam moo njëkk a violé loi bi toog ba mu neex la nga ne da ngay def déclaration patrimoine maanaam loolee teguwul fenn moom Mamadou Lamine Diallo ne Macky Sall bu ngeen ko déggee sax muy wax waxi déclaration patrimoine maanaam dafa bëgg a tuur la ñi nga xam ne ay partenaire am nañ technique ak financier yéen kaay gii de la témoin ñu fekk fa professeur Cheikh fay nekk université bu Québec nee na état bu Sénégal bu ñu waxantee dëgg maanaam bëggu tax xeex li nga xamante ni moo jëm ci wàllum guerre nee na état bu Sénégal wàllum mbuxum maanaam yitteelu ko ci réew mi ndax su ko yitteeloo na du ñu jël ay nitam yoo xamante ni dañu leen a jàmbaaraamu tuuma loxo si poos ne nañoo saax-saaxee sàcc alalu askan wi ba pare maki Sall di leen jox ay ndombay tànk waxi Cheikh Faye la ma ngi jël témoin du sunuy kàddu yéen kaay gii campagne agricole beek mbuxum ak te gi nga xamante ni ñoo ngi ko ci wax bëri na ñoo xam ne ñoo ngi wax ne qualité gerte gi baaxul am na ñoo xam ne ñoo ngi wax qualité gerte gi baax na waaye nag ñi nga xam ne ñoo fare ak ministère bi ñu dénk wàllu mbay mi ñoom nee nañu daal jamono ji quatre-vingt-dix-huit pour cent satisfaction am nañu ko yéenekaay gi nee na bëri na ay baykat yoo xam ne ñoo ngi wax ne gerte gi baaxul ñenn ñi nag tuumaal nañ opérateurs yi ñenn ñi tuumaal état bu Sénégal yéenekaay gi di enquête mu ñu xamoon ñu coronavirus ci Sénégal bu dee am na ñenn ñoo xamante ni andil na leen ay gàllankoor yu méttee métti askan wi nga xam ne ñoo dëkk Gorée la ndax nag ñoom fi nga xam ne fi la doon jëlee ab xaalis maanaam quatre-vingt-quinze pour cent jëlee tuñ ko fa ndax woppi coronavirus yéen a kaay gii di réew mi ak Source A xëy si Mansour Faye mi nga xam ne moom lañ dénkoon lépp loo xam ne jëm na ci wàllum jënd dund gi ak séddale ko moom Mansour Faye ni démb def na ab bilam wax na li nga xam ne maanaam génn na ko ak li nga xam ne moom la jënd ci biir yéen a kaay gi ñu fekk fa Abdou Karim Sall moom ma ngi dànkaafu ñi nga xam ne ñooy commerçant yi nga xam ne ba léegi ni daal ñoo ngi jëfandikoo ko sachet plastique yi nee na sax maanaam gàll ay daan ci seenu ndodd yéen i kaay gi du sunu làmb mu xëy duñu xamalal ñu combat bi nga xam ne ñoo ngi koy jàppa jonge diggante guy gi ak rëg-rëg ba léegi nii combat bi taxawagul moom guy gi la mu xamle nee na du nangu benn yoon ku ko sacrifié ndax waa ma ñoom vingt cinq millions la ñu ko fay te nee na loolee du ko bëree yéen i kaay gi di estat mu xëy yóbbu ñu diwaanu Angleterre nee na Premier League jamono ji course bu metti moo am diggante Chelsea ak Manchester United ngir nak kan moo ciy dem ci Ligue des yi ñu dëgmal yéen i kaay gi na Liverpool tey jii dina dalal Chelsea Manchester United dina dalal West Ham journal bi nee na en tout cas ñaar ñii ko si lajji man ngaa nërmeelu